action muy tey muy démb mooy institution dañ ko war a respecter ku mën a doon ku ko mën a incarner institution dañ koy respecter respecter institution mooy respecter président de la république parce que du moom président de la république mais institution ba muy incarner respecter institution mooy ministre bu mu mën a doon du moom mi fa nekk tur ak sant waaye institution ba muy représenté le premier ministre c'est une institution boo xam ne jàpp naa ne dañu war a repré dañ ko war a respecter parce que dafa jiite gouvernement fu mu mën a bokk mu bokk APR mu bokk PS mu bokk euh, Yewwi mu bokk Pastef c'est le premier ministre euh, te dafa am loo xamee ni man jàpp naa ne boo bëggee réew dox ci jàmm lu la wóorul bu ko wax xam nga mbirum lan la ñuy wax LGBT di ci tuumaal Ousmane Sonko wax dëgg fa neex yàlla nag Ousmane Sonko mën nga ko bañ mën nga xalaat lu nekk ci moom ba mu des mbirum ay LGBT ni da koy def promotion wala yooyu xam nga lan laa bëgg mooy nit ñi bu ñuy wax nañuy déglu kàddu pas une minute wala deux minutes mais nañ déglu kàddu yu mat ak contexte buñ ñu waxee ak la mu wax ba pare ngay doog a nit ki wala ngay doog indi ay ay critiques ci nit ñi quand le président de du parti PASTEF reçoit Jean-Luc Mélenchon dem ak moom ca université chante Anta Diop ba muy wax ba mu naan ko man samay ñaari soxna dañu ànd ba France ndax xam nañu ni ca France mbirum polygamie dañ ko fay dañ ko fa sip wala ñu bañ ko yamu ci mu ne euh, mbirum ngeen bëgg ñoo imposer mbirum LGBT lam la mën a indi mooy casus belli xam nga luy casus belli ubbi leen dictionnaire wala ngeen ubbi Wikipédia wala ngeen ubbi lu mu mën a doon ngeen xam luy casus belli casus belli mooy mooy loolu boo waxee nangam wala nga bëgg ñoo imposer nangam mën naa indi casus belli mooy mën naa indi déclaration de guerre mooy maanaam boo leen bëggee imposer ñu yéen seen mode de vie ak seeni fonctionnement ci mbirum LGBTQ yooyu mu eh, maanaam déclaration de guerre ngeen ñuy indil ñun. parce que duñu ko nangu duñu ko seetaan waaye ku wax loolu wax dëgg fa ne yàlla mënoo ko tuumaal goo jigéen am na nag ci suñu société la nekk xam nga mbirum tolérance boobu je l'ai dit la dernière fois bëgg ko ñu bañ ko même si dans les articles c'est clair et net dans la loi que dañuy tere li nga xam ni moom mooy acte contre nature dañuy tere acte contre nature waaye comportement wu nit ki wala gëm-gëmu nit ki kenn bindu ko ci benn loi dañ koy tere maanaam kii am na penchant euh, góor jigéen binduñu ko ci loi de xamul lan la ñuy bind ci loi bi acte ba ngay def moom la ñuy tere ñu mën laa condamné ci loolu bu ñu waxee tolérance maanaam ñàkk pexe dañ fi nekk gëmuñu leen bëgguñu leen waaye ñàkk pexe parce que liñ naan jàpp ñu la loxo ci poche nit dina fi efféminé comme on di ay manière yu yëpp jigéen mais tant que mënoo waat na ni kii góor jigéen la mënoo ci moom dara boo dalee ci kawam te deful act bu wane ni mbirum góor jigéen la yoon mën na laa mën na laa teg loxo pourquoi est-ce qu'on veut euh, circonscrire le débat ci mbirum góor jigéen mbirum Mélenchon la mu wax ci mbirum góor jigéen alors que dans le dans tout le discours bu bu bu premier ministre au Ousmane Sonko su du ma ne sax premier ministre parce que foofu il y en tant que président du parti PASTEF mais ci waxam yëpp mais wax na lu ci ëpp importance à mon avis wax na ci mbirum souveraineté ci wàllu koom moom suñ bopp am na lu mu dal ci kaw France ci président Macron ci dina mu taxawee na mu taxawewul ci mbirum euh, euh, réewum Sénégal ci ay jafe-jafe yi nga xamee ne ñu ngi ci woon ak yeneen ak yeneen gis nga nit ku jege Ousmane Sonko wala nga jege Bassirou Diomaye Faye nga am euh, maanaam Euh, jëfin yu ñaaw yoo xamee ni peut-être mu ngi sa biir xel wala ñu mën la woowee borom ñaari tour est-ce que c'est la responsabilité elle est du président de la République ou du premier ministre non Bah Diakhaté man je ne vais pas défendre un agriculteur fu mu mën a bokk mu ci booru ñoom sama copain bi ma jàkkaar lool damay bañ a sànni xeer <laughs> foo mën a bokk gis nga insulteur foo mën a bokk foo mën a bokk man du ma la défendre foo mën a bokk man du ma la défendre ba pare quand j'ai vu ñoo naan non les avocats disent que y a pas de euh, lan offense au premier ministre c'est pas une question d'offense au premier ministre c'est une question de kaddu bu ñaaw boo teg ci benn kuy incarner institution et je dis dans le code pénal sénégalais dañ la naan ci article 260 sera puni de la même peine de diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du gouvernement plusieurs membres un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale un fonctionnaire public un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition, la diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 261 du ma ci dellu si ak maanaam 254 260 bi ma lire ba article suivant am na lu mu wax ci wax bu ñaaw nga teg ko ci deru doomu aadama mais mu wax la am na wax bu ñaar boo xam ne boo ko tegee ci kaw koo xamee ni dafa nekk ministre wala bokk ci gouvernement le premier ministre et membre du gouvernement da ko jiite mais c'est il est membre du gouvernement mu am article yoo xam ne da koy leeral ci biir code pénal bu Sénégal je suis pas juriste mais dama dama ko xool jàng ko am lu ma ci xam loo xamee ni débat la boo xam ne mën nañ ko am ak ay juriste mais attends aussi Birame ñu différencier entre Ousmane Sonko premier ministre ak Ousmane Sonko opposant loolu moom moo koy mm. def moom son Sonko moo mën a mm. différencier loolu. Mm. mais quelle que soit la nature de la personne. man Birame Touré du ma premier ministre du ma ministre du ma lenn. mais am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee teg ko sama kaw. Mm-hmm. mais procureur am na droit auto autosaisiru pour bañ a indi benn situation boo xamee ne mën naa indi benn euh, euh, fayu fayu boo xamee ne mën naa jéggi dayo nga ci yenn kàddu teg ko sama kaw. Mhm. procureur xam gis ni kii am na ku ñu saaga koo xamee ni. Mhm. ku ñu ràññee la ci réew mi wala ku ñu xam la ci réew mi la mu mën a indi comme conséquence nangam ak nangam la mën naa indi situation. bu jéggi dayoo. man ma ne man premier euh, procureur naa jël samay samay samay jumtuwaay samay matuwaay ba nga xamee ni ka wax loolu yenn saa yi dinaa la jàpp téye la jàppalu la plutôt téye la pour yow sa sécurité sax. maanaam mën nañ jàpp ba jaxate téye ko c'est pas le premier ministre a porté plainte c'est pas le président du parti Pastef qui a porté plainte peut-être que ñeneen def nañ ko mais ci information yu ñu jot c'est le procureur qui s'est autosaisi autosaisine boobu nag ndax yëkkati nga kàddu teg ko ci kaw autorité boo xamee ni premier ministre wala ministre du gouvernement wala ku bokk assemblée nationale di président assemblée nationale wala autorité bu mën a doon ba ci kàddu boo xam ne yëkkati nga ko teg ko ci kaw président de la république procureur na ne attention kii xëcc ko téye ko jàppalu ko pour mu leeral li mu wax mën na doon sax sécurité ci boppam moom mais ce que je disais au début de mon propos moom lay maintenir une autorité quelle que soit l'autorité ñu bëgg ko ñu bañ ko tant que mu ngi doon autorité dañu am respect autorité boobu nga xamee ne moom lay incarné ci institution boobu nga xamee ne moom lay incarné quel que nag boor boo mën a féete dama ko daan wax ca ba fi ñoom Macky saal di nekk autorité doo ko saaga doo am yenn wax yooyu wax dama koy waxaat tey ci ñi fi nekk tey muy euh, président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak ñi ñu àndal autorité dañ ko war a euh, te tant que loolu dindiwuñu rupture la ñu wax mais la rupture c'est d'abord imposer aux gens même de son propre camp de respecter les les autorités de ce pays bu boobaa parce que c'est dans le programme par exemple de Bassirou Diomaye Faye de Diomaye président mooy institution yi ñu gën leen a wekk gën leen a jox cër bu leen war a jox mais institution mbir la nii rek mais dafa am kuy nekk ci institution boobu pour mun ko doxal. d'accord Bablaye arrestation baa Diakhaté es ce que mën nañ ko jàngatee lu accept lu ñu mën a accepter bu ñu xoolee motif yi nga xam.